Euh, sans majorité sax ñu mën nga xamante ni dinañ mëna utiliser sen constitution pour jallalé li nga xamanteni mom moy mom moy euh, réforme bobu mom ci bopam bi mu génnee ñu ne ko actuellement France yépp ngi am ay ay ay violence commencé nañ di tal poubelle yeeg yoyu té japp nañ né c'est un mouvement bo xam dina jëm kanam xam nga lu mu tontu dafa wax né la violence mu né est un poison pour une démocratie mais la contestation est un droit lol tamit dafa dëppook ñun suñu conviction contestation mënta ñak suñu borom je parle sous le contrôle de seigne am Diop mhm. suñu borom mi nga xamanteni mom mom moom bind lepp kérok bi mu bindee adama wax ci lim ci wax malaika yi dañu protester ne ko ndax da nga nar a ci kaw suuf moy li seigne mohammed doon wax léegi ko xam da fi tour tuur da fi yak di fi tour deret suñu borom non seulement protestation seen élément yoy daf ko jël en compte mais daf leen éprouver ba am ci ñoom dëgg doog a doxal li nga xamante ni moom la la sàkkantumaa nag sunu borom moom mooy doxe noonu yonent bi salaatu salaam sunu borom ne ko del consulter say collaborateur donc je pense que il faut qu'on discute il faut que ñu échanger te loolu dafa bokk ci li génn xam naa dinañ si dellu siwaat ci mhm. élection 31 juillet 2022 yow kenn gisul ci sa position parce que am na fi yu fi am yu yëngu yu bëri ci dëkk bi mais kenn gisu la ci euh, luñ ci war a yëkkati suñ kaddu yëkkati nañ ci suñ kaddu xam nga fi mu ne il faut que nit ñi di bàyyi xel lenn ñun bi ñu ñëwee dugg en politique dañu def un choix la politique aussi courage la fit la aussi soo amul fit ci wax li nga li nga li nga xalaat soo amul fit dañ lay yóbbaale rek ci tout et n'importe quoi dans un sens comme dans un autre ñun dañoo bëgg choix yi ñuy def yépp ci politique ñu koy def avec conviction dama wax ne man du ma opportuniste politique su ma doon opportuniste politique dinaa profité ci ay situation pour am tur wala soit pour def loo xamante ni gëw ma ko wala ma wax loo xamante ni gëw ma ko man loolu suñu borom dimbali na ma nekkuma opportuniste politique duma activiste politique tamit loolu tamit am na ñoo xam loolu lañ tànn nekkatuma analyste politique analyste politique mooy li nga xamante ni ci loolu loolu lañ ma xamee woon situation xew ñu daal di ñëw seet si ma sama kër wala ma dem ñu interpeller ma ci ma joxe ci suma avis en attendant la suite des événements voyez, un homme politique, moi je suis un homme, je suis, je suis un homme politique et je veux être un homme d'État. Un homme politique qui aspire à être un homme d'État, dañ koy xaar ci tenu, ak retenue xam li xew parce que jamono jii ñuy dund nekkatuñ rek ci jamonoy fake news dañu nekk ci jamonoy deep fake comme niñ koy waxee jamono jooju li gën a am solo mooy nga xam li xew. soo xamee li xew nag ci ngay jugé utile prononcé wu mais mënoo lu xew loo dégg la ca am ak la ca am doo ko xam nga daldi nga daldi jog daldi wax su boba li xew léegi muy var dinañ la vaara vaara vaar bo nga son mais par exemple fitna yi nga xamné amna fi. Hmm. ay événements yo xamné euh, dafa poser ci langue politique bi. Hmm. yow kenn gisu la ci ba ci plateforme bi nga xamné met nañ ko en place pour euh, lutter contre troisième mandat. waaw plateforme boobu ñoo ci nak wa ñoo ci plateforme bi. Hmm. euh madame Aminata Touré mom mo conduire une délégation bi ñëwoon seet ñu. mooy seen groupe de contact bi effectivement ñoo ngi ci coalition mais loolu ñoom dañ ñu ci fekk xam nga moo tax euh, ñi ñuy suivre tout le temps depuis toujours et les moo tax sénégalais bi ñu eggee ci 31 juillet 2022 le fait que ñu nangu suñu candidature yóbbu ñu fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale parce que xam nañu li nga xamante ni moom moo xew le débat sur la candidature mooy la troisième candidature hypothétique entre guillemets bi nga xamante ni moom la ñuy ruumandaat fi ne mais ñun loolu biñ ñu ciy wax ñu bari dañ ñu ci fekk on a donné de la voix par rapport à ce combat-là donc on un agenda politique il faut que nous assumions. effectivement nous cette euh, plateforme-là euh, nous avons troisième mandat euh, pour nous, ci a violence nous avons Sénégal c'est vrai que violence est triste c'est une image dégradante li yëpp du am Sénégal mooy li sëñ Muntaxa doon wax ne adduna ak li ci biir ak li ci biiram yilif ko jarul benn nit di dee man juin ba tey juin ba tey loolu laay wax te ci loolu laa continuer di wax jarul benn nit di faatu li yilif adduna ak li ci biiram dama waxoon ne bëgg agsi ci pouvoir jarul nit ñi di dee bëgg conserver pouvoir tamit jarul kenn di dee loolu mooy suma conviction parce que dama xool gis ne nit ñaa ngi dee depuis 63 ans ñun te taxul Euh, terewul dara mais li gën a garaaw tey mooy tey ci Sénégal àdduna bi fi mu ne dafa nekk di dox course bu doy waar mais li gën a triste mooy tey Sénégal journée sans école la ñu bari jàngiwuñ benn journée boo xamante ni doom sa doom yuy jàng di sàkku xam-xam ñëpp toog seen kër xoolal lool manque à gañe bi ni mu toll au même moment ñi ñu war a compétir d'ici quelque années ñoom ña nga ca seen école ya ña ngay jàng domaines yi gën a pointu seen morom yi di xëy di dem école ñu gis kérok ay xalé yo xamanteni ni génn ci mbedd mi di réclamer seen i morom ñu tëj ci kasso yi ñu gis tamit waajur yo xam dañuy xey impuissant de devoir maintenir seen dom ci biir kër yi parce que tout simplement li ma koy waxe toujours la démocratie sénégalaise aussi est victime de l'immaturité de ses hommes politiques d'un côté comme de l'autre loolu est la vérité les politiciens prennent en otage le pays depuis toujours et ñun c'est forts de ce diagnostic et de ce constat loolu moom moo ñu ci politique si on entre en politique pour faire la même chose pour di def même chose que nit ñi di def mais loolu franchement est-ce que dina ko jarati kon parce que finalement nit ñi li ñuy naqarlu lool rek la ñuy gisaat te li gën a métti tey mooy boo demee di dajeeg sénégalais yi da ngay ñëw ñu lay xoolee sax bëtu politicien bi fi jaaroon naxoon leen demaat ñëw xam nga keroog dégg naa kuy wax ne euh, député yi bi ñu leen falee ba tey gisatuñu leen. Mm-hmm. ñu bari seedeel nañ mm-hmm. ci biir Sénégal te ñi may tok yëpp di ma suivre xam nañ ko dem naa jàmminaar ci Saint-Louis. bima ma demee keroog bi may waxtaan ak waa ji Jaminaat dafa nekk quartier boo xam dañ ko war a euh, restructurer parce que boo demee nit ñi ci ci biir ndox bi la ñu dëkk. bi ma demee dama fa fekk ñoo xamante ni 40 ans révolu 50 ans révolu seen seen âge ëpp na 50 ans kenn ki day day def interview ba ci yàgg te loolu bi après mon élection laa dem seeti leen mu jox ma loxo ne ma c'est la première fois de ma vie ma nuyu député mu ne ma ñoo ngi doo ko gis koo xamante ni ñëw na ci ñun di sàkk suñu baat am ko dellusiwaat ci ñun parce qu'il faut beaucoup de courage pour nga mën ko def et ce travail là nous le faisons au quotidien té japp nañ responsabilité de notre génération maintenant la politique elle est ce qu'elle est dafa am ño c'est des rentiers de la tension dañoo bëgg tension pour ñu profiter, pour se faire un nom pour nit ñi xam pour ñu wone né ils sont aux côtés du peuple après bu démé jëfëndiko le peuple bi delluwaat ci sen bop lool ñun du choix dañoo décider dox à toute lucidité avec responsabilité dañoo dugg tey ci politique nekk un homme politique et on veut être un homme d'État Quoi, xamante ni bés dafa ñëw bés dina ñëw mu war a signer Inshallah, pour ne troupes sénégalaises yi on a dem guerre war a signer pour engager l'avenir des générations à venir dafa am en science politique ce qu'on appelle la solitude constitutionnelle Moi, big bi boy signer du ñëpp ciy jàpp ngay signer yow yaay été obligé de signer Quoi qu'on ait, su nit ku lucide su nit ku dal si dul nit ko xamanteni dafa ànd ak sérénité mëna jël avis ñëpp xaar jël avis ñëpp ba paré doga engager la responsabilité de de de de de de de de sa de la du magistère wala de la magistrature bi nga xam mom lay assumer mais su boobaa kon jaratu ko bëgg doo doon un nekk homme politique comme ni nga ko mais est-ce que agiroo comme homme politique ndax euh, journaliste nga woon ñu gis la ci média yi ngay jouer rôle comme journaliste. Mhm. mais bi ñu la nommé député ba léegi ban rôle ban fonction parce que fii homme politique moom euh, sa programme mooy manifestation conférence de presse ak tournée politique. Ah, loolu mooy seen métier. heureusement ba gisuñu ñu ci loolu. en fait li nga wax dafa am solo parce que xam nga rôle député c'est bien que ñu xam ko rôle député moy nit ki sa bu jogé né dama bëgg a nekk député li askan wi di xol ci mom moy est-ce que il est suffisamment compétent est-ce que amna na xam-xam buy tax mu mëna évaluer mu mëna nat saytu li nga xamanteni mom moy les politiques publiques loolu la ñuy njëkk a ndax amna xam-xam bi ndax compétence ñoo fi benen bi moy est-ce qu'il est suffisamment libre pour mëna contrôler l'action de l'exécutif et suffisamment outillé étoffé pour mëna euh, faire des propositions de loi lii mooy rôle lu député te loolu je pense que ñi nga xamante suivre nañu assemblée nationale aussi bien dans les travaux de commission où il y a eu des débats de haute facture foofu nag la chance que nous avions mooy média amu fa ci liggéeyu commission yi média amu fa ay débats yu serein ñoo fa amoon tegu ci xam-xam des députés de tous bords ñu téye fa ministres yi cuisiner leen laaj leen li ñu bëgg def nan lañ ko bëgg a joyanti ko et les ministres ont eu l'humilité de prendre en compte l'avis des gens léegi nag bu ñëwee plénière nga xamante ni média yi day ñëw foofu la taxaway di soppeku donc ay liguey bobu ñun def nañ ci sunu. responsabilité mais du temps plein du leen jëlal seen temps yëpp. nañ nañ assemblée nationale. wa loolu ben liguey la ben patch la. Mm-hmm. benen patch bi tamit moy li nga xamanteni état du Sénégal jël nako mm-hmm. ci politique publique ak la mise en œuvre des politiques publiques nan la député bi di mëna déployer wo à l'intérieur du Sénégal partout. pour man di xol di saytu di dajeek nit ñi di waxtaan ak ñom te c'est ça notre rôle aujourd'hui tey ji li gën a neex xanaa koor bu jotee mooy ngay ndogo sa kër té Taïdi, jii daje ak sénégalais ak et ak sénégalais moy tax loolu sax doko mëna té de def doto mëna profiter wu ci sa parce que est constamment sur le terrain ñi ñu suivre nous sommes constamment sur le terrain à la rencontre des sénégalais di dem fep di et Taïdi, l'histoire malheureusement nous donne raison même par rapport au euh, dossier judiciaire yi de et j'avais interpellé Ismaël Major Fall bi assemblée nationale sur lii nga xamante ni tey gisoon parce que la chance qu'on a quand on est journaliste moi que on suit de très près ce qui se passe on sait ce qui se passe donc moi, euh, euh j'aime bien la posture bi ngeen di am souvent parce que yenn saa politicien toog fii foog ne moom moo a xam li xew fekk ne yéen sax ak recul bi ngeen am mën ngeen ko gëna xam li xew donc man chance justice bobu justice bobu nga wax sànq euh, aujourd'hui le débat se pose ci lu instrumentalisation de la justice pour certains Benin côté un discours de plus en plus radical ak violent euh, ci ben parti bu far ci opposition bi ban camp nga situé wu. xam nga man justice dama ci amone position bu leer ci bi Ismaïla Madior Fall ñëwé assemblée nationale dama wax né justice liñ ko teg ci Sénégal depuis 63 ans attanu ko xam nga lutax parce que dama né dañuy dañuy il faut que qu'on soit clair dama né Sénégal amuñu pouvoir judiciaire nous avons une administration judiciaire amul pouvoir judiciaire C'est la première réalité xam aussi toujours en compte le principe élémentaire des réalités réalité bi moi euh, administration judiciaire la on a amna xamante ni mon yirif, koo di am que amna fa nous de sénégalais Yo avons sa bu bañ euh, apprendre quoi à leur dépens ñu sanctionner leen wala ñu jëlee leen fa donc c'est la judiciarisation de l'espace politique man ci ñi ko gën la naqarlu laa bokk du yoon du dëgg du et mieux encore dama jàpp ne même bu d'un dem ci année électorale il y a certains boudoul, dul bu ñu dans dama ne damay wax lu leer xam nga léegi réew mi dafa naqaree wax dama ne bu ci année électorale les gens yi nga xamante dañuy compétir pour bëgg président de la République les affaires yi nga xamante ni affaire criminelle wala affaire de corruption avérée hmm jàpp japp ne mën nañu ko mën nañu ko remettre au lendemain au moins ba élection yi jall budul dul fee yu mel na fekk nañ la nga sàcc xaalisu Sénégal wala ñu fekk la ci crime de sang wala ñu fekk la ci crime de de de de de de corruption avérée su boba yenn yenn paix banal parce que lu ko mooy day indi sentiment de suspicion si on a une la rupture de confiance Si on a une justice qui a éliminer les opposants et depuis 63 ans malheureusement c'est la même chose malheureusement alors aujourd'hui le procès c'est demain entre Mambay Nyan, Niang ak Ousmane Sonko est-ce que nécessité de mobilisation mobilisation du côté du pouvoir avec les forces de l'ordre barricader la maison de Ousmane Sonko lu dans le côté opposition beneen côté également mobilisation des leaders de Yéhu Askanwi. plus exactement ñi nga xam pas Pastef il faut que les plots de ni dafay dalal choses les plots xamante ni dafay indi jàmm parce que nous sommes un pays de dialogue loolu tamit bu ñu ko Faté, ne le code consensuel de Kéba en 92 dialogue la won. c'était le fruit d'un dialogue xëy ñu rek Kéba Mbaye taxaw daal di jël ay nit ne leen réfléchir pour le dialogue Dedet. c'était le fruit d'un processus de consultation boo xamante Abdou Diouf def na ko dem ba situation bi ni mu ni nii mu jëm baaxul ci réew mi def un code consensuel mais damay wax toujours ça bu ma cité loolu dama naan un code ne vaut que par son application. et surtout taxaway ñi nga xamanteni ñom ñoko sék il faut que ñu bokku yéné ci ne dañu bëgg dem ci jamm il faut que ñu bokku yéné aussi ci ne dañu bëgg dem ci dialogue parce que malgré